maa ngi tudd Kumba Sarji nekk formatrice savon fii si é bu Nioro bokk si GIE déggoo bu SEDAF waaw ñu ñëwoon tey doon former jigéen ñi jeune fille formation sa savon a ak de javel waaw formation de def nañ ko si deux jours deux jours lañ ko def deux jours yi nag démb lañ commencé mais démb biñ commencé si ngoon bi def nañ fi juróomi façon saabu moom lañ fi def démb def nañ saabu fóot def ñeenti saabu sangookaay ñeenti saabu sangu yuñ def am na saabu limon am na saabu mbërbëf am na saabu nooni am na saabu nebedaay loolu lañ fi def démb si ngoon ba pare defar nañ fi eh, liquide bi savon liquide bi def nañ ko fi démb dañ ko commencé rek tey lañ ko yeggali démb dañoo xoojoon bàyyi mu fanaan bi ñu ñëwee tey si lañ ko eh, xeenti jël ko sol ko si bidon yi comme eau de javel bi rek eau de javel bi tamit noonu lañ def démb lañ def commencement bi tey lañ ko sol si bidon yi. produit yi ñu utiliser yëpp fi lañ ko jëlee amul lenn lu ñu fi jëlee ji feneen li utiliser yëpp base bi yëpp fii lañ ko jëlee saabu bi huile de palmis moom lañ ko defaree huile de palmis mu ngi génnee si xooxu tiir ak xeme xeme bi fii nga koy jëndee soo demee si marché rek fekk waaw saabu sangookaay yi tamit saabu mbër bi mbër boof boo demee si kër yi mu ngi takk si sàkket yi àll ba boo fa demee di ko fa fekk fii rek lañ ko jëlee kii ko defar ko saabu limon bi tamit limon moom fépp la am kër yi sax am na ñoo xam ne am nañ ay limon moom it fii lañ ko jëlee saabu nebedaay bi mooy mbuum mbuumu nebedaay da ngay dem rocc si xob yi rek ñëw defar lépp uti jiwuñ ko fenn lépp fii lañ ko jëlee liñ defar yëpp c'est naturel ñun ñoo ko defaral suñ bopp ñoo ko utal suñ bopp ñoo ko defaral suñ bopp demul jënd ji fenn lenn. pour ñu mën a jël produit bi sangoo ko dañ ñoo wax ne da ngeen koy bàyyi ba mu am 15 jours boo tegee boo ko boo ko defaree ba pare rek doo ko utiliser si sa jour bi nga pare da nga koy bàyyi commencé compter si jour bi nga pare jour boobu ngay commencé compter ba mu am 15 jours. su amee jours nga doog a jël saabu utiliser ko bu ko defee du la wàññi dara xale mag yépp mun nañ koo sangoo du la wàññi dara day fekk xeme bi dosage xeme bi yépp kii na évaporé na daal dem na bu boo koy def di yàq dara sa yaram te taas bu mu fa fekk tamit da koy dindi defar bi moom amul jafe-jafe xanaa kay boo paree jaay bi mooy jafe-jafe da defar ba pare foo jaayee mooy sa problème parce que nit ñi foog nañ ni ñoom bu ñuy jënd tant que demuñ génn rek dem jënd ji lu lu lu defaree sa biti rek baaxut faut nañ loo defaral sa bopp rek baaxut loolu foog nañ ni li ñuy defaree extérieur moo gën a. maa ngi tudd euh, chef du service départemental de la jeunesse de Nyoro, directeur du CEDEPS. il va falloir ñu revenir sur historique bi puisque dafa nekk la nga xamante ni ngi démarré en 2015 dans la dans la zone sud euh, particulièrement au niveau de Kolda. puisque dañoo seetlu woon benn jamono ñu gis que ne déperdition scolaire bi dafa bëri woon trop et que li ko waraloon cause bi nekkul woon dara lu dul les mariages précoces les grossesses précoces ne comme nan la ñuy def ba combattre loolu fexe ba retenir les jeunes filles si école yi ñu mën a poursuivre seen jàng ba mën ci réussir en même temps aussi tamit ñu fexe ba li nga xamante muy mariage précoce ak grossesse précoce yi ñu éviter ko parce que loolu dafa nekk la nga xamante ne dafay jouer wàllu santé voilà bi ñu defee loolu mu nekkoon benn partenaire bu nekkoon foofu si zone sud bi ñu ko wax euh, en collaboration avec le ministère de la jeunesse ñu taxawal li nga xam te muy club de jeunes filles boobu temps ministère de la jeunesse ki yore direction boobu ñu ko doon wax PPJ projet promotion des jeunes actuellement mu nekk beneen direction ñu koy wax direction de la protection sociale ci actuel gouvernement bi si lañ amee boobu direction euh, biñu ñuy lolu formations. ñu def formation installé club de jeunes filles ñu dem tout gis que résultats. résultat yi mu ngi commencé di euh, améliorer si au niveau des jeunes filles Nous avons ngi des école yi di am ay résultats mariage précoce grossesse précoce aussi tamit mu ngi doon nek yoo xam di pourquoi pas ñu def ko au niveau national Nous avons fait aussi tamit en 2020 ñu ñëw fi dans la zone centre zone centre biñ fi ñëwé mu amone ben ONG bu ñu wax Enabel ben ONG Bells ñom ñoo ñu financer le CDF de Nioro ñu créé fi ñu installé fi deux clubs de jeunes filles mu nekk xalé yi ngeen di gis ni man nañ ne actuellement sont une soixantaine de jeunes filles mais ñoom ñëpp ñu fi voilà tay ñu ñëwoon fi nak euh, bi ñuy def formation aussi tamit dafa nekkoon ben amone ben volet bi ñu doon wax autonomisation des jeunes filles raison pour laquelle moi tax tey jii ñu défal leen formation bi nga xanté te muy saponification ak javelisation ak euh, voilà saponification javelisation puisque ñom buñ défé sen vente ay produits yoyu dina leen permettre que ñu am autonomisation voilà liñ ci djublu moy que ne ba école tijjee en général parents yi ñoy son di génne xaaliss bo ci amé cinq jeunes filles wala da fay metti

même bu fekk defuñu ko saabu sax dañ koy jëlee sax ci nature bi ni di ko utiliser kon donc nek na la nga xamante ne xam nañ la lu naturel la amul ben effet secondaire alors que li jóge à l'extérieur xamuñu composanté sax la en réalité parce que mën na am sax ay ay effet secondaire yo xamante ni mën nañu uti euh, indil yeneen loraange ci suñu yaram donc da fay gën ñu utiliser li nga xamante ni ñun ñoko momal suñu bop defaral ko suñu bop aussi comme li nga wax sank nak dinañ euh liggéey ci lool ba nga xamante ni tey jii nii lii di club de jeunes fii bi dinañ fexe ba mu nekk la nga xamante mu nekk association ñoom ñu créer seen logo bopp euh, fexe ba di def ay emballage ci seen ay produits mën ko exposer teg ko ci marché bi comme ça ñu mën ko utiliser. structure bi dina nekk la nga xamante dañ leen di gunge à chaque fois ci yeneen formation du nekkul ne lii rek moom mooy nekk li nga xamante ci dañ leen di taxaw entrepreneuriat bi dinañ si gën a taxaw incha allah euh, gën leen a gunge.

à chaque fois que nous avons moi, dafay de c'est les adolescentes en général de 15 à 24 ans voilà moo xamante kooku mosul dugg ci mariage voilà raison pour laquelle mooy jour installation bi dañuy invité seen parents yëpp nous ñi ñëpp dañuy devant leurs parents à ce que dinañ téye un bopp ba duñu am benn process avant le mariage voilà sans enfant maa ngi tudd Oumy Khayri Manka bokk ci club des jeunes filles bu nekk Nioro maa ngi dëkk Nioro waaw formation bi ñu ko defal pour jàngal ñu ni ñuy defaree saabu ni ñuy defaree eau de javel ak euh, savon liquide pour après ñu ñu dem defaral ko suñu bopp ñu jaay ko suñu bopp comme ça ñu am suñu xaalisu bopp comme laa dit tantôt que après dineen am luñ jëndalee suñu bopp yere ou bien jëndal suñu bopp fourniture pour jàppale suñu parents yi amuñ si benn jafe-jafe parce que ñun xam ne suñu parents yi premier jour buñ ñëwee pour sos club bi ñoom dañoo ñëwoon fekkee ko ñoom xam neen bu baax ñun luñ fiy def si club bi xam ne tam lu ñuy xaar si club bi parce que moo tax boo buñ tàggoore dañuy bàyyi te savon bu ñuy defar ak madaar beeg yooyu ak eau de javel bi buñ demee tam dañ koy utiliser suñ kër yi rek ak suñ yaay leen koy jox tamit day gën a yaxanal suñ poos papay di leen wax que ñu gën a góorgóorlu club des jeunes filles moom pour jàppale jeunes filles la juste am na ñoo xamante ni nag ñu ngi naan club des jeunes filles bi ay affaire da ngelaw la genre parce que dañuy dem euh, réunion après ñun xamuñ luñ fay wax wala xamuñ luñ fay fekk suñ suñ suñ wàccee dañuy dem taxawaal jég yooyu alors que yooyu amu si ñun xam neen bu baax luñ ñuy jàngal xam neen bu baax tam luñ ñuy def loo juste que dañuy jàppale pour suñ santé ñu instant bi ñu ku nekk xam na instant bi Euh, sa santé parce que dañuy jàng santé de la reproduction am na yoo xamante ni am na ñoo xam ne xamuñ ko comme par exemple ay infection su la dalee nu muy manifesté woo yooyu yëpp am na ñoo xam ne xamuñ ko te ñoom tam lu ñu jàng si si biir club bi lu ñu def sedeb si suñ ñëwee dañ koy dañ koy jàngalaat su yeneen morom yi nga xamante amuñ chance bokk ci club bi